Euh, mot de remerciement d'abord à l'endroit de nos partenaires ci taxaw bi ci jàppalante parce que lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak ñoom mot tey ñu mën lii yaakaar naa Covid bi nag Sénégal suñu taxawaay defe naa ñëpp apprécié ko dans le monde monsieur le représentant wax na ko léegi àddina bi yëpp xam nañ son excellence président Macky Sall ni mu taxawoo ci feebar bi apprécié nañ ko partout dans le monde te ñun tamit gis nañu résultat yi parce que xam nañ ne xëy na taxawaay bi am su amee soo deful woon noonu xëy na peut-être dina am jafe ci réew mi yàlla dogal na mu taxaw ni mu ci war taxaw yëpp indi ci contribution sociale parce que yaakaar naa buñ dee jigéen ñi ak wax couche vulnérable yi la ci ëpp solo mooy jàppale leen parce que ñoo ne ci biir kër yi ñooy sonn ñoo tey bi covid ñëwee impacté na jigéen ñi benn façon boo xam ne waa ngeen seen ay koom-koom waa ngeen seen taxawaay adopté geste barrière taxoon na mënuñu dem fari parce que jigéen ñi foo leen fekk ñu ngi ci mbedd mi di jaay di seen kon bu ñenee toog leen seen biir kër rek defe naa am na donc président xam loolu jàppale ñu d'abord ci aide alimentaire bu am solo jigéen bu nekk famille bu nekk mu indi la kit alimentaire boo xam ne tey ji ba léegi am na ñoo xam ne seen kër ñu ko utiliser loolu defe naa avancé bu rëy rëy la te war nañ sant bu baax président de la famille bu ñu jógee ci loolu ñun ne en tant que ministre département en charge les familles ñun tam def ci lu lu am solo d'abord euh, ci sensibilisation communication gis nga suñu taxawaay ci loolu ñu fexe woon ba jigéen ñëpp ñu fexe ba indi ay femmes leaders ñu wane naka la war a def naka la ñu war a taxawee quelles sont les mesures à prendre mesures barrières naka lañ koy naka lañ koy defee lancer message ba jigéen ñi ku ci nekk taxawu sa fami jàppale leen si parce que nous sommes au cœur des familles te bu ñu amee communication ak message yu war lancer ci yéen lañ ko war a jaare bi jógee ci loolu ñu indi euh, projet 1 million de masques bi ñu nee nañ takk masques yi defe naa jigéen ñu bari fii Sénégal ak foo mën a nekk Sénégal rek au niveau national fexe nañ ba jox nañ la masque mën ko takk parce que assez nañu en passant ñu leen bu baax seen contribution ci masque yooyu

te yàlla indiwuñu tey ñu ànd ak suñu partenaire action contre la faim indi ay kit yoo xam ne ni ñu koy indi tey di ko joxewaat ay kit d'hygiène pour wane rek ne ba léegi feebar baa ngi fi ba léegi dañu war a fagaru dañu war a taxaw vraiment adopter geste barrière pour que feebar bañ a dellusiwaat te li fi des tamit yàlla génn ko Sénégal loolu nag ñu ngi ciy félicité baax suñu partenaire mais di félicité aussi Mbathio félicité monsieur le maire de la commune de Parcelles Assainies et la maire de Barcelone mi xam moo tax tey bés bi am ki xam naa peut-être jigéen ñi moom da ko mën yóbbu kër eau de javel la saabu la euh, pour vraiment ngeen continuer adopté geste barrière parce que feebar bu génn ñun la génnoon ñu jigéen ñi parce que jafe-jafe santé bu amee famille rek jigéen ñi la interpellé en première ligne en première ligne donc ñu ngi leen sant baax di leen remercier di leen féliciter di remercier son excellence le président Macky Sall aussi la relance de l'économie parce que xam naa ne jafe-jafe yi bari na waaye itam tëdd ci kër gi mënut a nekk dañuy vivre avec le coronavirus fas yéene ànd ak moom ànd ak yàlla ba yàlla ko fi kon bu ngeen relance économie bi relance activité ñu delluwaat suñu ay liggéey mën a am ay koom-koom delluwaat suñu ay kër def naa loolu tam mooy vision président mu def ci lu bari indi ci ay milliards yu baree bari pour que ku ci nekk fa nga nekk rek ñu mën a fekk jàppale la defoon na ko dans la résilience mu defal ko dans la relance pour suqaliwaat projet yi nga xam ne nekk dans le plan Sénégal émergent pour que projet yooyu mën a demee suñu dëkk suñu réew vers l' émergence en 2035 kon ñu ngi félicité ñëpp di sant ñëpp di remercier ñi fi teew ñëpp di ñaan yàlla ki ci aussi ñu remercier encore une fois le, notre partenaire au nom du ministère de la Femme et au nom du gouvernement du Sénégal.